wax ne yàlla dafa bind ñett barab léegi laa koy wax barab barab boo xam ne day am ijaaba nga xam ne barab bi ci bopp moo ko am ku fa ne loo fa ñaan suñu borom nangu ko wa ma daxaloo kaana aminan maqaamu ibrahim misaal ak yow ma arafata ak bis bis boo xam ne ak waxtu masalan day waxtu temps boo xam ne dañ ñaan temps bi moo am ijaaba Hmm. diggante bii ak bii am ñu lu mel ne ajjuma dañ naan bis bépp la hmm. am ñu ne yoor yoor bi am ñu ne diggante bii nodd am ñu ne diggante ñaari xutba yi hmm. am ñu ne gannaaw bu saratan booy sëlmal am ñu ne gannaaw takkusaan koor it bari loolu ay yu mel noonu noonu mu defee ci temps yi noonu mu defee temps nga xam ne temps bi ci boppam mooy am ijaaba ni lay defee ci nit ki nituk ijaaba ni lay ci barab bi barabu ijaaba loolu nag dafa mel ne ñu jëkk ñi dañ ko daa dañ ko daa xintewoo di ko sàkku ci ay barab mm-hmm. di ko dàkk ci ay nit di ko dàkkit ci ay waxtu mm-hmm. mu mel ne yooyu yëpp sëñ bi suñu borom daf ko ko booleel moom ci benn loxoom mm-hmm. moom barab bu mu ne day soppaliku barabu ijaaba barab bi ci boppam waxtu wi barab bu mu ne rek bu jóge woon fii dem Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor mel noonu bu fa jógee dem Mbàkke Bari Mbàkke Bari mel noonu bu demee ci yéen Jolof barab boobu mooy soppaliku barabu ijaaba jaww jëpp day mel ne réseau bi la yor nañ ma ne seen seen réseau seen eh, yi ngeen yor di ci réseau réseau yi ngeen di liggéey ci rajo yi ah, ah. day am barab yu muy ne ak boo xam ne boo fa jàllee doo ko man a am mm-hmm. sëriñ bi nag réseau bi moom la topp dafa toxu ci moom nga xam ne fu mu ne barab ba day doon barab ijaaba mm-hmm. moom ci jëmma mit mm-hmm. ak ñakko ko soob ci ak njabootam ak ñakko ko soob ci ñam defar dañuy doon niti ijaaba waaye li ngay mën a takk rek mooy xasida gu jaral sëñ bi taalif ñaari yoon ñor na ko xasida gu jaral sëñ bi mu teste ko ñor na ko bi liñ ci man a jàngate ci ay ngëneel dafay mel na xasida gune am na lu mu gën a lu mu gën a métti lu mu gën a def taxasus loo xam ne ca la gën a jëm ku bëgg xéewal dañaa ne demal ci wakaa naqan ca nga koy gën a séentoo wala ñu la demal ci wala xadd karam naa donte doo xam nañ ko ci dëxe ñi ak nañ ko war a defe waaye daal yooyu moom dana la wóor ne looloo ko tax a jóg ñu mel ne parce xasida yëpp mën si na koo jàngal ko fi jóge waaye mu wër la jaawartu looloo ko tax a jóg mhm. ko faatoo ko tax a jóg mhm. noonu nag la maraaxi mel ci defar nit mhm. defar nit masalan nit ku fees dell ki bàkkaar ak nit ku yàqu ni ab sëriñ bu mat sëriñ mel nga xam day mën a jàpp nit di ko defar di ko defar ba ay bi bakkanam jeex ba li ñuy wax at taxliya wa taxliya mu def ko nga xam ne day rekki mboolem yi ne woon ci moom te wuru cee Mm-hmm. waaw joxaat ko nag mboolem li mi ngi mel ne ku taq rip rip rip nga foofu sa saabu di ko sang ba mu set. Mm-hmm. nga diw ko ba mu niin. Mm-hmm. la xëpp ko lañ ko lañ fabaat ay yére yu bees teq solol ko. noonu la ma raaxib di def ci jëmmi doomu aadama. ku fees dell ki bàkkaar nga xam ne. moom moom fëkkatal yóbbu sa war rek a ca des. dafa ne ñu kenn naagu nañ ci ba kenn mënu koo defarati. kon mu mel wax nañ ne xaside gi. di ko tax a jóg mooy defar nit. kon ki koy yittoo ngir bëgg caa defaroo kooku ban taxawaay la war am digg ma xasida wala ban wàccuwaay la ko war moom da di dégg sax ñu ñu xër dañuy koy ragal ñenn ñi naan maraaxib day dofloo ñenn ñi ne maraaxib kenn waru koo jàng ñenn ñi di ko ragal ak lu ne ñu dañ ko ci wax parce que euh, benn mbokk suñu Moussa Moussa Abdoul Khadir di ci waxtaan ak suñu champ ngir bëgg a si am ay leeral ci loolu mm-hmm. loolu mm-hmm. ne ko ah man de ba ma ko mokkalee yàgg na te mosuma ko manqué bis benn bis te kon na suñu soxna bi ni woon jot. di jàngale te neen mosu ko manqué bis bu ne tari na ko. Hmm. ne ko ah, waaye nag loola moom seytaane mooy def noonu. ndax ku xam la ci sëñ bi def. ak lam ca diggee. Hmm. dana la wër na seytaane dana jiima yàqal ni ñi. Hmm. ngir won leen nekk heure wur koo jàng. waaye waaye waaye waaye luy lore newu ci. waaw li man yaqra'uhu maa yaxbitu bii si waaw seet ko rek. baag ji waaw li man xafisa aw xasala bi ay waccin bi nabi amala wadfa bi xabla tawjihi lahin ila siwa xaarihi mm-hmm. wa yujlub liman yaqra'uhu xayra muraad asluku yar bal wala xayra muraad mm-hmm. yooyu mujj daxañ boole ko ci loolu loolu dafa fees del del del dafa mel ne daal moom docteur la buy faje mm-hmm. ñetti bayit rek nga ca yoo xam ne ku faatu ku ne boo ko ñaan la ñu jégal ko ñetti bayit rek waxfir li kulli muminin wa mumina maxfiratan li kulli xayrin mudmina waxfir li kulli muslimin wa muslima maxfiratan taxsimuhum min zalama waxfir li kulli muxsinin wa muxsina maxfiratan lahum taquudul xasana xasida goo xam ñetti bayit yi képp ram mën a ab néew jërëjëf kon day mel ni eh, daanaka indi nga ñu taarixu xasida gi ak liñ ci war a mën a jàngatee ak liñ ci war a mën a jëlee ci ay njariñ waaye tamit indi nga ñu tamit ndaw li koy jàng wan yoon la war a war a la war a tege ngir war a mën a jëriñoo xasida gi day mel ni daanaka fa nga daanelee eh, kon nag lan ngay dénk ndaw ñi nga xam ne dañoo jublu ci xasida yi na xasida gu mel ni jàllibatu maraxib muy benn bi ko ñaaral lan mu bu fekkoon am na lu lay yëm ci xasida gi ban tegtal nga ñu ci jox wala ban bind. xasida ma ci gën a yéem mooy testament bi sëñ bi def nag loolu loolu damaa gisul mu def ko ci gën a xasida te loolu nag kii kii maanaam da ko féetewut kaw fa bu bind ko mu tooy xëpp nga sànni ko ci géej gi ngir xool ba xam sa borom nangu na ko mu déet foofu sëñ bi toll boromam loolu moo ma ci gën a yéem mu doxaat ba i si loxoom dara tooy ci loolu gisuma gisuma benn sëriñ mas koo def moom it gisuma mu def ko ci genn a xasida gudul googu waaye gëm naa ne lu ñuy sàkku ci ci nit ku bëgg a defaru diggam ak boromam xasida gi man na ko luñ ko yanit àttan na ko waaye ci kaw nañ sell te sellal. kon yan kaddu rek ngay yëkkatee jotaay bi. ngir ñu mën ko yóbbaloo. xasida gi moom dafa am loo xam ne xëy na sañu su ko wax ci rajo waaye li ci sëñ bi dëxañ ci ay mbóot ci xeeti turu yàlla ak ci mbóot yoo xam ne bu dee yenn nat yi nga xam ne daa ku bari solo dana ko mën a gëstu ba xam ko rek boo ko doon seet yow dalay jaaxal lii nuñ ko mën a boole ci benn bayit mboolem lu ñuy sàkku ci turu yàlla loolu bari lu ñuy sàkku ci lu baax sëriñ bi dëxañ na ko ci biir xasida gi nga xam ne loo waroon wuti cib sëriñ loo war a dugg wuti ci seexul murabbi bi dajale na ko def ci xasida gi da ngay koy topp aw tur yàlla wala xaatim wala loo xam ne dana ko fukki at di ca daj alalam ju ne sëriñ bi dajale na ko def ko ci kon lu waaye di wuti rek li ñaan jaw fal faraa daal mooy xasida gi waaw boo doon wuti daal la nga gën a bëgg di ko wuti da nga ko fee bàyyi mooy jaarul muraxib waaye nag ci sellal ak da ko jàng-njàng mu yem te bu la yàqal dara ci sab liggéey jërëjëf euh, Serigne Abdou Samad waaye tamit ñu ngi sant bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo teewee